junni junni manuscrit lañu rangé ci placard yi maison des éditions africaines du Sénégal entreprise bi di dund ay jafe-jafe ba mënatul sax produire ay ouvrage yu bëri. atum 1972 la ko ndem si yàlla Léopold Sédar Senghor sampoon tey ji Neyas am ay tolof tolof si wàllu koppar. waaw nañu jënd suñu livre nag ndax ndax benn bi bax ba léegi dañuy def ay foire mais dañuy xale yi dañuy ñëw dañuy bëgg livre ndeysaan dañuy bëgg mais dañuy waxaale sax. parce que lii amuñu pouvoir d'achat xam nga dëkk bi dafa metti conjoncture économique bi. seen jafe-jafe yi nag mu ngi tàmbali ba ñu ñàkkee marché éducation nationale si kàddu directrice générale bu NEAS ndimbal gii di tukkee. si jëwriñ gi gàll wàllu culture yëf yi sax doyatul ndax ay maison d'édition yu bëri. dañu bëgg daal dërëm daal mu génn ci gaal gi yow am nga say la ko yu mën a defar ay livre nañ la defaral livre dëgg la nag du ibbeeku bi moom ibbeeku la munuñ ci dara waaye nag tamit ñun ñii du dem France mu di fa gañe marché. jafe-jafe yi nag am ay njeexital si nekkinu liggéeykat yi nekk fii si biir NEAS. ñi ci am ay intérêt di suuxat yeneen maison d' yi fi nekk yoo xam ne c' est des représentations gis nañu leen duñ fi nekk di cité benn tour on le dit pas parce que dañuy kii mais je pense que tey dañu war a jàppale nationaux yi. ngir ñoŋalaat sax liggéey bi si biir NEAS moo waral direction bi nas ab de relance projet boo xam ne jébbaloon nañ ko nguur woon. li ñuy xaar ci état bi mooy. mu financer le plan de relance bi nga xam ne ça a été validé par des experts du ministère des finance te loolu nee ci boppam bi mu koy defar soxlawuloon mu jëm jëlee experts ci biti mais ñoom ñoo ko defal seen bopp seen biir. donte ni sax mu ngi jànkoonte li kay jafe-jafe si wàllu koom NEAS moom ba tey moom mooy maison d'édition bu njëkk fii si réewu Sénégal mën nañ ne sax bii si gën a am solo ba tey ndax seen catalogue riche na lool lu ëpp junniy titre si bépp xeetu genre littéraire la ñuy fekk fii si NEAS ay livres yu ay écrivain yu am tur fi si dendu Afrique bind Léopold Sédar Senghor ba muy samp bi la entreprise lam sa jublu woon mooy fexe rek bëgg na dooleel littérature africaine